man maay chef de l'opposition. fen day dul waxul dëgg. day fen maa ko wax. si sa njaanjare moo wax lii. man te maa naaw benn yoon noppalu man eh, mim réew ay fu nu <laughs> mais président Idi mooy chef opposition bi de yow loo wax. <laughs> <laughs> mais les Ivoiriens ils m'ont lan la les Ivoiriens dañu wax ni. tous les moutons se promènent dans les rues d'Abidjan. mais ils n'ont pas tous le même prix. caan le ngeen di fuural a tànk ay lay <laughs> la la safur la idi ngay woowee xat koon <laughs>